baa ngoog liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Hakim door na ko ci université bu Touba di pàcc bi nga xam ne moom la sasoo te dooree ko ak jumaa ji nga xam ne moom lay liggéey fondement bi noppi na bañ tàmbalee sëkk bi ki nga xam ne nag moo di Serigne Cheikh tey jii mu woowoon ñi nga xam ne ñoo di mbokki jullit yeeg taalibe yi ñu ànd ak moom li nga xam ne moo di liggéeyu Serigne Touba bi mooy sëkk mboolem fondation bi. lu nu mel nag mboolem taalibe yi wusi nañ Serigne Cheikh ànd kook mbooleem njabootuk sëriñ Abdoul Hakim bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy def ci université bu Touba bi taalibe yi nag takk lool lañu def ndax bi ñu xëyee rek lañ ñoom ñëpp daal ñëw ci université bi ngir ànd ak Serigne bi liggéey bi waaye fësal ci ak mbégte ndax ñoom nee ñu liggéeyal Serigne Touba rek lañ bëgg te képp koo xam ne woo na leen ci dañuy fas yéene ànd ci ak yow Serigne Cheikh nag liggéey bi ànd na ko taalibe yi mu ñëw ci chantier bi ñi nga xam ne ñoo di mbokk taalibe yi kenn ku ci nekk di ko ziyaara saafonteeg moom waaye sàkku ci moom ñaan fas yéene ànd ak moom tamit liggéey bii nii. ñi ngeen ko gisee ci image yi taalibe yi sëkk li nga xam ne moo di fondation bi wane si Pastef ak pas-pas ak engagement. ba matale mboolem liggéey bi sëkkaale nañ sax bërëb bi nga xam ne dafa xawoon na xóot dañu war faa taxawal li nga xam ne moo di hôpital bi loole lépp taalibe yi bi ñu xëyee liggéey nañ ko waaye sëñ bi ñi nga xam ne ñoo di dawalkatu camion yi wuy nañ ko ci wooteem bi nga xam ne moom moo doon sëkk fondation jumaa ji nga xam ne moom lay taxawal ci université bu Touba bi mbokk ci téléspectateurs yi ñu balee nag quelque temps fort laataa ñuy teewlu yenn ci jëwriñ yi nga xam ne taataan nañ seeni kàddu bokk na ci sëriñ Sidi Ñaan sëriñ Xaadim Gueye ba ci sëriñ basiiru Mbàkke mi nga xam ne rakk la ci sëriñ Cheikh Akim ñoom ñëpp ñu am ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko waaye laataay boobu ñu bàyyi leen ngeen dund li nga xam ne moom moo di temps fort yi bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw sawi baqaa abim bi fii ka yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sariika law وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوسي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي li nga may laaj moom loolu na loo xam ne lii sama xam-xam sax bëriwut waaye mën naa ceex nag yow Mouhamadou Mountakha ndax Serigne Touba dafay jëmm joo xam ne ji jenn jëmm rek la du ñaar képp <clears throat> képp koo xam ne kii ñu ngi koy tudd di la tudd rekk dañu lay nax ndax la mu def ak la mu nangu ak la mu attan teg ko yaram te sooy naa ma rasulullah sallallahu alayhi jaral ko ko amul keneen meneen mbindeef mu ko rasulullah jaral ba loolu amee ba noppi Cheikh ba Bassir nag dafay jëmm joo xam ne ji suñu borom da ko defal ab cër ci kër sëriñ Touba boo xam ne bii bëriwul ñu ko fi defal ndax eh, yoon moom Serigne Serigne Bassir la ko Serigne Touba dénkoon ngi gannaaw bu loolee amee itam njabootam ji ay murit lañu ay saadeex lañu ay ay dëmm lañu yoo xam ne ndigalal Serigne bi leen gën a lépp moo leen gën a añ ak reer moo leen gën a lekk naan eh, ba tax na liggéey bi bi nga xamante ne Serigne bi wax na ko. ne dafa bëgg ñu tàmbali ko Serigne Cheikh moom am na fu la ndax nii mu def rek wax ne man nañ ma jox san wàll ma liggéey ko loolu muy dëgg ndax yoon wi du yoon woo xam ne bii dañuy dajale mbooloo mi rek laaj leen alal ñu jox leen ko ñu jox ko ay nit ñi di ko yor di ko liggéey déedéet yoon wi nam daa je nam daa demee rek seex si bari na kilifa yi bari na ñi am euh, positif liggéeyal sëñ Tuubaa bari na bu sëñ bi soxlaa na wax ne sëñ bi nañ wax ne sëñ bi soxla na mbooloo mépp daje maase boole seen alal ak seen seen doole seen xalaat def ko ca. man loolu euh, Cheikh Abdoulaye Akim jëm la jooxane ji la gël sëñ Tuubaa rek ko mos a ñor musta bëgg dara musta sàkku dara musta dara bëgg-bëgg bépp mooy Serigne tubaa ak liggéeyal ko ak njabootu Serigne tubaa gi nga xam ne ñoom la fi suñu borom bàyyi ñu nekkal fi Serigne Touba kenn ku ci nekk am euh, am naa moom wala réew woo xam ne seq na ko moom muy njabootu Serigne Touba gi ci doomam yi fi newoon ci li ma xam. ñu sëñ Blaat ak sëñ Abdou Xaadir ak sëñ Saaliw ak sëñ Murtala ak ñëpp ak ba ci soxna May ñoom kenn ku ci nekk sëñ Abdou Hakim seq naa ngi wëlëre woo xam ne nii ñoom ñoom ko seqal sax bëriwut loolu nag du dara lu weesu bëgg maamam ja fas ko yéene liggéeyal di ñaan sama borom dox ko it kàttanu mën koo liggéey la ci loolee la nekkoon ci la doon dund ci la doon àndaat mboolam ku ko ko jox sa ku ko jox sa bopp ci loolee la nekkoon di ci yar ak njabootam ci la leen màgg ba ci leen yar ba ba ñu màgg ba xam loo xam ne lii xàmme nañu lu leen di jariñ ak lu leen di lor waaye nag ñi mu fi bàyyi day alhamdulilah rabbil alamin da suñu xol sedd na ci moom seen kóolu teef dal na ci moom ndax suñu seex am na ngor am na pësteef am na jom am na taalibe bëgg na lu baax nangu na koo sàkku te it képp koo xam ne kii nit ku baax nga day boo njaxasoo moom da nga xam ne as gor a ngi ne ab jullit ngi doon ku bëgg sëñ Tuubaa ngi ne ko nangal am na fitt itam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa am na it ak njàmbaar ci la sëñ Tuubaa amul lenn loo xam ne lii mën na koo taxa tiit wala mu jax wala muy wax leneen lu mu wërte wax euh, lëggéey bii nag nii mu ko defee man sa man de ànd naa ci maak bu ñu demee ne kii noonu ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa waree su ko fab rek jox ko kenn mu di ko yor wala mu di ko déedéet na mbooloo mépp ko war a séq kenn ku ci ne da caa war a am cër daw cër sa kem kattan bu ñu ko defee rek lépp dana baax ni ko sëriñ bëggee dana ko ne amee ngi sant sa gërëm di ko ñaanal sama borom guddal fanam wéral cëram doole ko kattan moo ay rakkam yi mu bokkal Cheikh Abdoul Ahad Hakim ci daraje Sëriñ Maam Rasulullah bak Sëriñ Basiru bak Sëriñ noo ngi soññi taalibe yëpp nag ci ndigal lii nga xam ni ndigal la lu bàyyi ko woon ci Sëriñ Tuubaa ndax liggéey bii kat bu ñu ko seetloo doon na loo xam ne lii lu yéeme la ndax ñi fi jaaroon ci njabootu Serigne Touba kenn ku ko ci mën a liggéey amul waaye fekkoon na Serigne Touba joxe woon na ay teg tegtalu ku war a liggéey liggéey bi ndax boo seetloo ca laxat jaakum ba muy wax ba mu laataan wax li Moustapha xudduus li Moustapha lii ban xudduus madrasatam li Muntaxa la jëkk a wax. kon joxe woon na ki nga xam ne kii mooy ki war a liggéey liggéey bi mu Cheikh Mamadou Mountakha ba mu tuddee Mountakha moomee ba ñu egg da caa teg lii Moustapha lii Banoul Khoudoss madrasatan bihaa yasuunul asaawul jahlu wal kamadu kon nag lëggéey la boo xam ne bii képp koo xam ne ki fekk na la ci kaw suuf nga am loo ca def te defu ko ca man caa ñëw te ñëwoo ca wala nga am loo ca mën a dugale bañ xam ne ci lan nga wax kon sa diggante ak sëñ Tuubaa man gaw mën dëgg la man daal fas naa yi ne maa ku ma déggal ku ma topp ak ku ma nangam loolu am danañ ko ci def loolu maa ngi koy maa ngi koy digal ñëpp di sant taalib bi yëpp yàlla sama borom yal na leen defal fan gudd ànd ak wér yal na leen jox wërsëg wu yaatu bu bari bu barkeel wu ànd ak xam ne nii lépp lu sëñ bi joxe ji rek ñu song ko daaneel ko fi ci kaw suuf ndax murit moom jëfe ndigal bàyyi tere rek bàyyi faal yi ñuy wax bàyyi faal neexut bàyyi faal bu dëggalee du neex ndax bàyyi faal lenn doo nga koy naqari ñu war koo jox ndigal te joxuñu ko ndigal waaye buñ ko joxee ndigal xolam sedd na amatul bëgg-bëgg ba kanam fam na ko teg ko fi suuf kon nag waruñu noo gën a gëm sëñ waruñu noo gën a bëgg lu baax nan def ne ñoom luñ ñu digal nañ fas yéene def loola te bañ ñu tere buñ ko defee rek liñ bëgg suñu diggante ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa doon na ko defal ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë jëf sant nañ taalibe yépp nag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 أنت العزيز الثلاثي أطيب بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار الدار دون الإنقاذ كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبيد والسلي والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدونا سم وخن لي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو nal mag te yàlla